Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance en renouvelée, merci de vous likes, merci de vous abonner, merci également des bails, des commentaires, un plaisir renouvelé hein. à chaque fois de partager des informations, inbox sénégalais, fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal. Rokul Khadi, Gorgo Khadi, ñu ngi leen di ñu également ci lal hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen rek jàmm ñu nekk ci yi aussi erreur judiciaire rek gi ñeen ñi deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat de seen i jaboot ñi delluwaat duna suñu borom xar leen àjjana fi daw yi en avançant ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité et on continue gars yi actualité bi ñu fas yéene waxtaanee ki nga xam donc ki di Nicolas Jackson ak Michael Owen biko daldi tag di lan la wax ci Nicolas Jackson nan la gisee profil du joueur bi loolu yëpp ñu fassé nako wasaré wasaaree gars yi laata ñu den di jox également analyse bo xam di ngeen ko gis après ci Baba Show tey jii dem len abonné en masse seetaan ko ci kanam inshallah allah rabi mais d'abord ñi li nga xam mooy donc PSG community ñom ñoom in nañ démenti gannaaw bi nga xamé né wa l'équipe équipe ñoo daal di fësal ki nga xam ne donc euh, Verratti buñ ko daldi di écarté c' parce que dafa amone surpoids ñom nak né nañ euh, wax nañ waa ak waa l' équipe ba waa l' mujj gi ñoom rectifié nañ loolu ñu daal di waxoon Marco Verratti bi nga xam ne nag gars ah, moom dafa nekk ci instance de départ parce que Paris Saint-Germain boole na ci ñi nga xam ne dañ daal boo leen club wala boo guro feneen ngeen daal di yéy ah, ko daal wax Marco Verratti moom nag bëgg-bëggam mooy dafa noonu dafa bëggoon Randal a Randal ah, fi ne ñu ngi waxtaan ak xam ne donc mooy donc waa Eintracht Francfort pour daal koy récupérer loolu day gën a rek ne kii di Kylian Mbappé moom saison bi jexé day dal di dem donc le joueur français donc bi nga xamné Paris Saint-Germain jëkk na def premier offre def nako légui nak entrant ñoom ñoo ci des ki nga xam également Sergio Ramos ancien joueur du Paris Saint-Germain mom dal jëmono ji turam mo ëpp lu muy ñëw ci réseaux sociaux du côté de la Turquie club yi ci Galatasaray Beşiktaş euh, Fenerbahçe c'est i supporter dal ne nañ nañu recruter ki nga xam moy donc ki di euh, donc Sergio Ramos Edinson Cavani dem du côté de Boca mom nak ah du dougal premier but le nouveau numéro 10 ah, du Boca Junior ah, nek joueur bo xamné c'est l'un des meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain aussi marqué na du côté de euh, Napoli Edinson Cavani Qui nag di Malinowski Malinowski nag gars euh, dañ du côté de Genoa mais nag prêt avec option d'achat obligatoire Madame maanaam mom Genoa moom da koy daal dañ ko abal mais dañ koy obligatoirement loolu daal la ñu ci li nga xam donc li ñu xaatim diggante Marseille ak club bii di Genoa ci Italie qui nag di xam nga Hein, le, le, défenseur euh, de d'Arsenal euh, passé par Olympique de Marseille fi mu ne Nottingham Forest moom moo ko bëggoon yeneen club qui xam ne nag pour recruter jamono ji donc euh, Renato donc fini mu situation bi demee na ah, donc ki nga xam aussi nag mooy Gravenberch mom dal dafa bëgg Bayern Munich ma fini na fi mu Liverpool aussi mi ngi placé wu pour jéem a jënd le milieu de terrain de 21 ans nga xam dal gisul bopam fo nga moy donc ci ben da waxoon na leen rek dal dafa bëgg a jouer su joué wul dafay daal di <coughs> Endo numéro numéro 3 bi lay sol moom tey sax bokk nañ ci groupe bi nga xamné moy jouer ak quoi li nga xam moy Liverpool ak Bournemouth jamono ji match bi commencé na premier mi-temps bi gis ngeen jeex na 2 buts à 1 pour l'instant gis ngeen dinañ ci dellu ci si yeneen xibaar ci euh, top jëm si nga xam nak moy donc point mercato bi et ça ki nga xam moy donc euh, Nicolas Zaniolo momi dem na du côté donc gis ngeen ko de euh, l'Angleterre hein dem euh, aussi hein, ci euh, fa nga xamné moy donc championnat boo xam dafa yago na rêve dem fa gannaaw bi nga xamné nak AS Rome moko daldi won al du côté de Galatasaray prêt la nak avec option d'achat bien sûr ni nak gars yi match bi nga xamné ne ñu koy xaar après hein Tottenham ak Manchester United également Pape Matar Sarr va-t-il jouer ou pas on en saura quelque chose fii ci kanam mais donc voilà il y a de fortes chances mu démarrer ci bon bi mais match la boo xam on espère que dina fi am temps de jeu am bopam ki nga xamné aussi nak moy Michael Owen Michael Owen néna franchement mu découverte bi ma def Rennes moy que ne aussi yi nga xamné ne Chelsea def na ko mooy Nicolas Jackson mom nee na joueur bi daf ko épaté manam joueur bi daf ko bett dafa dafa yéme ci Nicolas Jackson nee na ni ko gisee ni ni ah Nicolas Jackson fekk fin de saison bi yalla nako ciat cat am ah na dina ko gis nako ko muy ay bi bi bi bi parce que aussi bo lay gisee kérok ni mu def nee na keroog dugalul mais daf ko épaté keroog moo nekkoon homme du moom homme du match ci match bo xamné kérok keroog gis nga ko dum def Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté kenn mosu ko def ni tébal digi saa yi di lay teg épaule lépp nga résister nee na bi bu gëna adapté wu championnat Angleterre ah gën am temps de jeu nee na dina fa toj dina fa rajaxe loolu la wax ci nga xam ne Nicolas Jackson nga xam ne récemment kii di Mauricio Pochettino génnoon na ne moom kii di Nicolas Jackson moom gëm na ne moom Mauricio Pochettino que ne dina dugal ay biu biu biu biu l' attaquant sénégalais bi nga xam nag moom nee na ñëw ma Chelsea pour euh, voilà pour euh, voilà pour ñëw def li fi kii def Eto'o def plutôt li fi ki nga xam ne mooy donc euh, Drogba def na ko fa wala Demba Ba def ko fa wala Lampard def ko dama ñëw pour bind sama histoire bopp dama ñëw pour wane sama bopp dama ñëw également pour wane ne am na loo apporter ci essentiellement j'ai de beaucoup d'espoir sur lui Nicolas Jackson dañ koy dal la laftir rek mais joueur bo xamné bu gëné travail précision bi boy c'est daw le commencer parce que maturité da dafay am maturité da am da ngay gën di dem ci liggéey boo nek sax da ngay gën dem di adapté wu ba nga xam day nek ci yow donc aujourd'hui loolu la nek di woné Nicolas Jackson et c'est une fierté di gis doomu Sénégal également di footballer lu ñu mel gars yi nii nag moo nekkoon information lañu bëggoon jox bu len faté bëss ci lien bi nga xam mom la def dem abonné ci Baba Show ngi sétane vidéo bi mo def def naa le stratège 1 le stratège 2 le stratège 3 le stratège 4 moy ñëw Nicolas Jackson lay doon mais aussi bu len faté surtout ci chaîne bi di eSport TV li len di ñaan rek gars moy ngeen abonné en masse liker bés ci cloche de notification ngeen njëkk jot vidéo yi bu leen bëgg am information yu leer té woor pour ñi gay wérante comme ni ma len tooñee sa su nekk rek fi la su baxé ci yéen la su bonee suñu la jaa ngeen